Yeah. amateur de foot joueur Real yi nga xam ne dañ leen toppee ci wàllu vidéo sexuelle bu ñuy doon partagé ba mbir di ci am coow ak ñoom seen dinaa leen expliquer nu mu demee ak naka la ñu bëri ñu ngi ciy réeree mbir comprendre ñu salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant coow moo jur coow jamono ji foofee ca Espagne muy noonee ñu bëri nag ñu ngi naan Real di dafa am ay joueur am yu nekk ci équipe A bi yoo xam ne nii dañ leen euh, tuumaal ci wàllu yenn vidéo sexuelle yoo xam ne ci benn xale bu jigéen buñ jël di ko partagé euh, loo xam ne nii dañ leen cee jàpp dama leen leeral avant tout du joueur équipe A bi ay joueur la yoo xam ne ci benn kenn ki ci Cassia bi la nekk maanaam réserve Real de Madrid yeneen ñett yi ci Real équipe Real trois troisième équipe Real bi la nekk waaw mu ngi noonee Real troisième équipe Real bi la nekk pour ngeen xamee ko noonu que ni du équipe A bi quoi pour ñi nga xam ñu ngi réeree mbir ak ñoom seen du tee nag catalan yi xam naa dinañ am lu kaañee Real de Madrid ndayu mbi moom moo génn def communiqué ne ñeenti joueurs yooyu ne impliqué nañ ci mbir bi ñu ngi def ay. ay ay ay investigation ba jot ay résultats yoo xam ne c'est détaillé ñu joom a jug ci sanction yi nga xam ne nar leen leen koo teg muy ay gone yoo xam ne nii jamono ji football mondial loolu bokk na ci li ko nar a yàq xam nga yàgg naa leen interpellé boobu ba léegi saa yu may def vidéo di leen conseil yéen jeunes joueurs yi nga xam ne yéen a ngi ci avenir di waaja a doon euh, jour professionnel wala doon ji ballon d'or wala ñoom seen préparer sa avenir teel a takk soxna bu dee dem nga ba commencé laal say milliards teel a takk soxna nag seytaane fu ne lay fële te it en général mu ngi noonee nit góor-góor rek la te it entraînement yi ngeen def entraînement professionnel am na jigéen nu ñu leen di fekk see à un moment donné di ngeen dem ba seen carrière mën ngeen ko ruiner te mu ngi noonee te am na ñoo xam dañuy ñëw uniquement pour yàq sa carrière ñii di wër si yow xaalis et tout Richard Lisson rek keroog mu koy leeral kon nag ku yabu jéema a góorgóorlu ci sa carrière concentré ci sa bopp ak sa sa famille. waaw boo mënee tàkk soxna nga tàkk soxna nag jamono ji mbiru wàllu sexe ñoom seen bëri na trop trop trop ci football mondial actuellement fréquent na ci trop kon nag ku jàpp bàyyi ci xel bu baax a baax pour ñi nga xam ne comprendre ñoon histoire nu mu demee mbir mi noonu la demeek naka la léegi dinañ ñëw ci Vinicius mi nga xam ne mën naa ni euh, dafa blessé woon ñu bëri yaakaaroon nañ ci après trêve internationale dina ñëw mais finalement Vinicius blessure bi dafay jëlaat temps dañuy toogaat xaaraat benn quelque temps ñu jéemoo xool nu muy demeek naka la loolu daal lañ jot a jot xibaar ci jëmm joojee kooke di Vinicius di leen leral que ni tamit Liverpool mu ngi doon def kéem kàttanam xelam nekkoon na ci kooke di Vinicius pour en cas bu Mohamed Salah demee moo ko mën a remplacer mais nag man dama incroyable boobu depuis bërki démb léegi muy rot waaye pour leeral leen ni kàddu yooyu noonu jotoon naa rot ci jamono yi ñi toog xam ne si lañ toll ci Vinicius Liverpool ni ci defee euh, xelam pour mu war a mën a remplacer Mohamed Salah Liverpool nag nee na Salah c'est un joueur mais situation mën na changer en ndax xaalis bi ko Arabie Saoudite nar a tegal mu ngi noonee waaye it foofu Vinicius c'est un joueur injaayable foofee ci Real Madrid pour ñenn ñi xam ko loolu moo nekkoon xibaar gi gars yi jëmee ci Vinicius ak Real képp koo xam ne nii ak euh, mbir moomee nga xam ne jot naa jur coow képp koo xam ne abonné goo suñu chaîne YouTube duggal suñu bio TikTok nga bës ko YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex bu dee yaa ngi Instagram di ma seetaan demal

عبدا ثم moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax baax. si yaa tuur macha allah. yaa ngi leen yàlla def ay cinéma. def leen ak jaamu oh.